waxuñu ay dix ans ginnaaw fi nekkoon de tey suñu mandat jeex on connaît vos règles on vous connaît on connaît votre malhonnêteté on vous connaît vous êtes des députés des mais tey du jàll ça ne passera pas ça ça ne passera fii ba suba rek fii ba suba fii ba suba nu ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy defee madame la présidente bu vous rappelle l'histoire vous rappelle monsieur le secrétaire général Aliou Sall madame la présidente l'histoire vous rappelle arrêtez ce débat et dem waxtaani ci biti trouver une solution pour que ça continue parce que ça là ça ne prospérera pas dañuy continuer rek ba suba mais yéen ministres yi toog fii bu dee jaay doole la du ngeen ko fi voté bu dee góorgóorlu la du ngeen ko fi voté moom duñ ko fi voté rek wasalaam madame la présidente presse maa ngi leen di nuyu Cheikh Seck